Ngagne Demba maa ngi lay nuyu. maa ngañ lay fay. nga nekk euh, étudiant ca UCAD nekk secrétaire général bu JUTEL Bambey déjà coow li bari par rapport ak ouverture euh, université Cheikh Anta euh, bu Dakar lan nga ñu si mën a wax ak cours yi nga xam ni dafa war a tàmbale. voilà fi may wax rek mooy que ni étudiants yi la communauté étudiant jàng la. étudiant université la xam te université bi ni mu tëjee voilà da ngay xam ne wala ci manière bi mu tëjee nekkutoon loo xam ne étudiants yi sabablu nan ko mbala autorité université yi lu nan ko donc nag ñoom bu demee ba nga xamante ne tëj nañ université bi ci ay fan yu néew dañ leen a proposé ñu def ay cours yoo xam ne dañ koy def euh, à travers internet ñu koy def ay cours en ligne voilà. pour yooyu nag bi leen ko proposé ñi nga xam ne nii ñooy représenté étudiants yi ñi nga xam ne ñooy représenté étudiants yi aussi ñoom dañu xamal communauté estudiantine bi ne leen pour yooyu waruñu ko mën a def parce que pour yooyu buñ ko defee day am xaaj ak seen parce que dina am ñoo xamante ne nii voilà dinañ bëgg def cours mais duñ mën a def cours parce que fanu dëkk la bala seen connexion duñ ko mën a am bala yoruñu appareil yoo xamante ne dina leen permettre ñu connecté wu pour mën a jàng correctement ci loolu voilà. waaw dañu gisoon aussi euh, SAES maanaam jàngalekat yi nekk foofu si UCAD di wax ni ñoom euh, dañoo bëgg ñu tàmbale cours en présentiel arrêté mbir mi en distance ñu gis ne aussi étudiants yi doon nañu appuyer enseignants yi si laaj boobu le loo ñu si mën a wax yow ngañ e, effectivement parce que boo xoolee muy étudiant bi muy jàngalekat bi ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy que ni maanaam ñu li nga xam ne liggéey bi ñu seq la muy éducation mu nekk mu jaar ci yoon wi gën a normal voilà te xam naa ne ñoom buñ buñ ci prononcé si question bi étudiants yi appuyer leen dem naa ne dinañ am solution boo xamante ne nii voilà dina baax mooy que ni étudiants yi dinañ dellusiwaat ci université bi jàng parce que en distance ah, daa bari daa bari ay obstacle dafa bari ay jafe-jafe daa bari ay tolof tolof yoo xamante ne nii muy ci étudiant bi la muy ci jàngalekat bi la voilà buñ xoolee tamit man na ne wala temps bi jàll mën na noonu accepter la xewoon parce que dellusiwaatul université bi jàng nekk xalaat ak problème yi fa amoon ak batiment yi yàqoon infrastructure yi oto yi ñu fa yàqoon ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp nekku toon xalaat ñu dellusiwaat brusquement di jàng mais suñ toogaatee ba ci at biir ba jàpp ne war nañu mën a delluwaat ci kër googu noonu jàngaat normalement waaw man dama gis ne yoon la étudiants yi dellu woon ñu jàngiwaat. Euh, donc depuis combien de de temps ngeen di def cours yi à à distance Ngagne pour à distance yi dès le début lañ ko proposé ci njalbeen ba lañ ko proposé mais jàllul léegi nag bañ demee ba nga xam ne il y a naa ne motul sax weer lañ leen proposé pour en ligne parce que cours en ligne étudiants yi defuñu koon carrément boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent des étudiants defuñu koon parce que amuñu accès ci plateforme bi ñenn ñu connecté wuñu sax bay si jàng à la fin euh, en fin de compte lañ leen jox euh, ñi nga xam ne ay représentants étudiants lañ ñi ñu jox leen ay clé USB ay affaires yoo xamante ni voilà dañ ciy dugal yenn cours yi pour yenn étudiants yi man si jot mais xam nga ne loolu ñëpp mënuñ ci am accès moo tax tamit ñu gis ne maanaam dellusiwaat def cours yi en présentiel lool rek mooy solution bi. voilà. moo tax tamit ñoom seen mm. kàddu suñ ko tënk rek mooy tamit dellusiwaat mm. ñu bëri di tiit aussi que élection présidentielle yi di ñëw boo moytul dañoo nar a tëj université bi carrément euh, parce que dafay tombeek mm. voilà février janvier février ak université ni mu mel ak politique bi foofu dañu ragal ni dañuy continuer di tëj université bi loolu loo ñu si mën a wax. waa loolu de boo xoolee day nekk loo xam ne dina xaw a yenu maanaam xam ma maanaam dinañ ko tëj xam ma duñ ko tëj mais daa nekk loo xam ne parce que boo xoolee université ni mu tëjee xam nga politique moo ko tëj bu fekkan étudiants yi ñoo doon grève si loo xamante ne nii maanaam problème mu enseignement supérieur la mu àgg fenn fi xam nga da ngay xam ne wala lii nii c'est c'est c'est c'est dû directement à l'éducation mais politique moo moo fa amoon daanaka ay coow politique ba nga xam ne tëj nañ université kon suñ demaatee ba nga xam ne candidat yooyu ñu ngi dem ci ay élection yoo xaman ne maanaam mat ay février la loolu nekke ci biir milieu euh, euh, ci biir année scolaire bi universitaire bi waaw loolu mën naa yeeyaat ay fitna parce que campagne day am mobilisation day am manifestation sax mën na am donc nag euh, compte tenu de ce qui s'est passé antérieurement pour maanaam pré pour anticiper ñi nga xam ne autorité université yi lan mën nañu teg université na nañu proposé benn pose parce que tamit maanaam question sécuritaire la question la boo xamante ni maanaam c'est un peu sensible aussi parce que boo xoolee communauté estudiantine bi ñëpp ay jeunes lan te voilà ndaw ñooñ ñi nga xamante ni maanaam bu tàmbalee rek Sénégal dañuy jàpp ne ah comme université def nañ naan c'est normal c'est logique voilà ñoom daal ñooy joxe mën naa ne provers ci ñuy xew yu baree bari ci dëkk bi daal. Mhm. léegi dañu gëj a dégg étudiants yi wax affaire bourse dafa mel ni problème boobu état bi régle na ko ak yenn wala da nga koy dëggal wala. waaw loolu moom dinaa ko dëggal parce que boo gisee bu ay année mi ngi nii déggoo benn grève boo xam ne nii grève de bourse la. donc jàpp naa ne yi état de paiement yi mi ngi génn à l'heure donc nag loolu ak cant la boo xamante ne parce que étudiant lool moo ko jàppale si jàngam voilà loolu moom se confirme carrément que ni baax na te mi ngi satisfaire étudiant yi voilà donc étudiant bi nga xam ne day jàng wala problème am enseignement supérieur dafa sensible man dama jàpp ne question la boo xamante ni daa war a nekk priorité ci état daa war a nekk loo xamante nii dañ ko war a boole ci voilà priorité yi nga xam ne état da ciy jël ay engagement hmm. léegi euh, ngañ dem ba nga nekk secretaire général euh, bu UGTL Bambey ñu wax tuuti ci euh, politique bi di leen laaj naka ngeen di préparer li nga xamante ni moom mooy parrainage actuellement surtout foofu ca Bambey waaw di li ñuy def mooy di santaat di gërëmaat aussi nga xam ne ay militant lan ak ay militante yoo xam ne ñu ngi ci département bi di am ngërëm lu yaatu nag di ko jagleel ñi nga xam ne ñooy ndawu département bi bi ñu tabee def ñu seen jiit pour ñu ànd ci liggéey bi nga xamante ne mooy falaas fal Karim sa Wade mu nekk suñ président ci élection yi nga xam ne mu ñëw en deux mille vingt quatre voilà parrainage bi nag ñu ngi koy waajal parce que parti bi direction parti bi ak parti bi kera daje naan permanence ñu joxe fii de parrainage yi waxtaan ci ak secteurs yi waxtaan ci ak fédération yi waaw kon li ciy def rek mooy wàcc sur la terrain liggéey gën waxtaan ak population bi gën leen a ñaax gën leen a xamal aussi suñuy bëgg-bëgg ak suñu ay engagement yi ñu jël ci réew mi. Hmm. waaye ñu bëri di leen laaj euh, fan ngeen toll ak seen euh, candidat bi di Karim Meïssa Wade ñetti weer rek des ci élection yi kenn gisagu ko euh, loo ñu siy tontu. waaw loolu moom daanaka xam naa ni am nan habitude. di ko dégg parce que candidat bi depuis lors kon chaque jour question boobu la ñuy posé question boobu la ñuy laaj kañ lay ñëw lu tax ñëw lu tax ñëwagul mais damay wax na rek comme euh, ni ko père Doudou Wade doon waxee président Doudou Wade maanaam parti bi dafa am calendrier boo xamante ni maanaam moom loolu lay liggéey Karim Wade aussi dafa am calendrier boo xamante ni maanaam ci la nekk ñun li nga xam ne moo ñu ñor mooy kani wàcc sur le terrain. liggéey li waral liggéey waxtaan ak population sénégalaise bi xamal leen luñ bëgg parce que xam nañ ne te njortu nañ ne te am nañ ci yaakaar kan dina ñëw ci fan yu yàggul dara incha allahu rabbi ñu def ko président. wante euh, c'est vrai xam nañ may sa Wade wante ku bëgg a jiite réew aussi euh, dafay laaj nga teel a ñëw saafonteeg askan wi wër Sénégal yëpp aussi aussi est-ce que euh, temps bi mu nar ñëw wala saafonteeg sénégalais yi du gàttu trop si moom. waaw loolu mën naa ne mm-hmm. mën naa gàtt mën naa bañ a gàtt mm-hmm. parce que quarante département yëpp boo si demee fu nekk parti bi organi am na fa euh, structure ba mën nga fa parti bi am na fa représentativité ba nga xamante ne ni maanaam Karim moom su ñëwee rek day adressé wu directement ak ñooñu voilà kon donc maanaam bi am solo mooy fil bi mi ngi fi machine bi mi ngi fi moom su ñëwee rek dafay koy activer affaire yi dox Hmm. Euh, ma laaj la beneen euh, laaj aussi si euh, comment dirais-je ci ministre de l'intérieur li mu wax si Sidiki Kaba par rapport ak assurance yi jëm ci organisation <laughs> élection présidentielle bu deux mille vingt quatre est-ce que Sidiki Kaba li mu wax dal na seen xel que transparence dina am si mbir mi waaw wala déet. waaw njortu na ne transparence moo ci war waaw su génnee mu wax ci question bi dalal xelu Sénégalais yi xamal ne leen élection yi day jaar yoon war naa te résultat yi ciy génne mbala ca nan koy doxale mbala ca nan koy demee lu normal lay doon loolu maanaam Sénégalais yi doon ko war a xamee ne loolu la war a demee waaw nekkul loo xamante ni lu extraordinaire la mais man li ma gëm mooy que ni élection yu normal moo war a am élection yu libre élection yoo xam ne nii maanaam day leer nañ du am xàjj ak seen candidat yi nga xam ne dañ caa war a dem yëpp ñu dem ca ñu dem ci élection yooyu noonu ki ka war a gañe gañe ko incha allahu rabbi wala man loolu laa dem parce que Sénégal lool moo am Sénégal ñun lool la ñu xam waaw Euh, dernière question par rapport ak situation bi nga xam ni euh, ñu nekk ci opposition ñu ngi koy dund di waa Pastef ñoom nag ju euh, juge si joxoon leen dëgg ne faaw ñu rétablir Ousmane Sonko ci list électorale yi ñu gis ne jaabante nañ deux fois ñu dàq leen ci direction générale des élections pour jox leen seeni fiche de parrainage naka nga gisee mbir moomu ay Ngagne ba waaw Ndeye Comba xam nga xam na loo xamante ne ne maanaam man dama jàpp ne xel moo ko war a mottali parce que manuma gis ne maanaam man parti bi ma bokk li nga xamante ne moo koy dëggal moo ñu war a jox dëgg maanaam li nga xam ne mooy condition d'existence bi nekkatu fa parce que parti buñ dissoudre parti nekkatu fa ay la yéwén beneen ba ca topp mooy candida bi nga xam ne yow moom nga bëgg mu dem ci ay élection ñu ngi ko jàpp tëj ko ci kaso ci ay fee yu baree bari yoo xam ne benn réglé guñ ko si donc booy dox ci yeneen dimension yi pour réglariser ces faits là man damay jàpp ne loolu yëpp théâtre la waaw li am solo te man su ma fa nekkoon mbala ma bokk ca mbaa ma man leen a conseiller ñu dégg ma mooy ñu wuti beneen candida candidat préparé ko bu yàgg ñoom loolu lañ waroon def mais tey boo bëggee ne Ousmane Sonko day dem ci ay élection ngay dem di laaj ay fiches parrainage ça c'est de la pure comédie Ndeye Comba Sénégal ma dama jàpp ne am na loo xamante ni faaw ñu koy waxtaanee entre nous voilà. kon mu ngi noonu ngañ dem ba ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax Ngagne. jërëjëf Ndeye Comba jërëjëf. voilà may fàttali ni étudiant nga ci université Cheikh Anta bu Dakar nekk secretaire général bu JTL au niveau de Bambey.